الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين di Sarak muy Cheikh Abdou Samad moom Serigne Chouaib moom mi nga xam ne waajuram ku ne xam na ne wali yu kaamil jàngale ko du Alxuraan la woon di jàngale ko du xam-xam Serigne Mountakha doyloo ko macha allah nee na Serigne Chouaïbou sunna rek la mos a xeeñ mosu ko wàcc Serigne Abdou Samad mii nag di ne ci wetu bi di jàppale Serigne bi sëñ bi doyloo ko lool fépp foo xam ne da ko faa yebal xamal ne ñooñu sëñ bi da leen a bàyyi xel moo tax mu yebal ko ci yéen kon kon ngeen xam ne kon Serigne Abdou Samad mii ànd ak rakkam Serigne Mahmoudan Serigne Mourtala ànd ak doomam Serigne Fall moom Serigne Moustapha moom Serigne Cheikh Mamadou Bachir sëriñ bi naan mi ngi lay ndokkeel ci bis bu màgg bii nga xam ne ak ziar la nga xam ne fu ne la ay jullit nga bàyyi ko di fi teew di ziare di fi sàkku si yiw te xam na ne képp ku fi ñëw loo fi sàkku da ko am teew gi ñu fi teew nag day wane ni lislaam bépp benn la ñoo bokk loo xam ne duñ ko séddoo mukk ci àdduna na ñëw am nag ay naanuwaay yu wuute waaye lépp ci lislaam la bokk سمتوا المؤمنون إخوتي والمؤمنات لي أخوات وحياتي حسنات ينبوك يتعو المجاهد الأكبر والولي الكامل والشيخ الحاج عمر الفوتي يكون خمنا خيخنا بصن خارنا بصن فرنتك نفتانكم يل يكتل الإسلام يل رسال الإسلام لولا ني سوري من ننكو سيري ني من ننكو سيري دمونا نك تيور يمدون ور دمونا مباكي بوار ba mu demee fekk na Serigne Touba ñëwagul adduna waaye mu ne leen am na koo xam ne dana feeñ te fii lay feeñee bis bu feeñee dana yëkkati lislaam su feeñee dana sagal lislaam su feeñee dana tasaare lislaam te bu ñëwee wilaaya kaamila moom lay doon la mu waxoon nag ñëpp dañ cee teg seen bët ndax nitu yàlla lu mu wax dañ cay teg bëtam kon Cheikh Omar yàlla na ko yàlla fay jëf yu rëy yi xam ne jëfal na ko lislaam te itam nag ginnaawam ñi ko wóor ci jal bi ak ñi wutu Cheikh Ahmadou Bamba ci jal ay ay góor yàlla la ñoo xam ne fa ñu tegoon seen tànk mosuñu koo teg kon nag léegi njaboot gi tam mu teg teg seen tànk dañ ko tegoon yow sëriñ bi sëriñ Mountakha nee ngi wax ci la ministre sëriñ Abdou Samad na mi ngi lay naw mi ngi lay kañ mi ngi lay kañ mi lay bàkk sa taxawaay ci wàllu yàlla sa taxawaay ci wàllu jàngale sa taxawaay ci ñi nga téye kër Cheikh Omar téye bu rafet sagal gën a sagal si jamono Cheikh Omar ak sa taxawaay yoo xam ne ñi suuxat jàmm ci réew mi ba tax réew yi dal bokk nga ci ña nga xam ne dañ saa gën a boobu nga taxaw di suuxat jàmm di tasaare jàmm di yar njaboot bi di ko bokk bi nee na yàlla la yàlla sàmm yàlla la yàlla wér amiin yàlla la yàlla gën gën fee yàggal sa jéego yi ngay yàlla na yàlla teg ci yoonu yàlla yàlla gën a dëgëral teg la ci yoon woo xam ne doo ko wàññi mukk yoon wi nga jaar mooy jëriñ jaam ñi mooy jëriñ réew mi wa rahmatullahi wa barakatu tagg yi ñëpp ñu ngi ñëpp tagg man delloo naa la amin

Ah, minha ya Rasulullah. Amin. Amin. Ah, Amin. Ah, Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.